dalee ko ku demee nii sécurité di xuloo man ko bul xuloo waaw da ngay gis koo xam day nuyoo sëñ bi ñaar téeméer sëñ bi toog nee mu laluk basangam war a añ war a reer war a ndékki war a naan attaaya ñu xelil ko café ku ko rom mun ko ñëwul fii laa dal sëñ baa ngi ci biir bu ñëwee du gaaw a nuyoo tonkol gaare kat katam yow juróom-benn fukki junni war a jox sëñ bi mu nag tee la nuyoo mu ne lu tax sëñ bi di gis kii te gisuma ginnaaw ñaar téeméer nga nuyoo te war nga fi am ñetti fan kii war a joxewu nag bu ñëwee na nga nekk ba mu joxe nag wi bu wàññi yow mi joxe ñaar téeméer da joo ko yëg nuyoo bu kenn xuloo léeg-léeg ñu ni sëñ bi li li muy doxal déedéet sëñ bi doxalu ko yàlla ca boppam moo ko jëkk a doxal 1200 nga yor dugg njagañaay ñëw Touba mu gaare 4 4 fab soxnaam ak doomam yëpp ci dugal ci ay kees ci kanetam def def ci beñeem def def ci lim ci war a def lépp yor 500000 war ko nuyoo sëñ bi romb la nuyu sëñ bi nga mer meleel yàlla mi la jox 1200 jox ko 44 bu kenn xuloo